ma faat balaa balaa balaa ba ñëw sax ci làmb mbër ak koor parce que mbër yi bëgg nañu lekk mbër yi bëgg nañu nalaw mais naka ngeen di dundee ak koor gi nii naka ngeen di dundee entraînement yi da ngeen naan ne matinalu mais fi mu toll nii naka ngeen nar a dundee ak koor gi. non man moom instant yii benn siège laay def ngoon laay dem falaay leen góor du dóor du dóor du dóor li ma war a def yëpp daal li ma koy def si ngoon maa bi daal vraiment mais tere moom ay damay woor moom léegi man damay woor waaw def naa ci at at yoo xamante ne benn fan sax du ma ko tax de barke Sëñ Saliou Mbacke ñi ma dëkkal sax xam nañ ko waaw koor moom du ma yaaxal dara moom vraiment ni ngeen bëggee lekk koo gi ñëw <laughs> ngeen wax xëy suba fu ngoon toog jot du ngeen lekk loolu loolu dina dina métti yéen de day métti mais nag nga muñ rek doo xam ne wér yi moom lenañ yoru promotion la xam nga gaaw ci profité wu rek jaamu ci yàlla xam nga rek xam nga jaamu yàlla xam nga rek wóor wóor yàgg wér yàggul quoi xam nga est ce que nekkul li ngeen di taamu bëgg lekk moo tax mbëri xaaj bi yëpp 3 heures wala 5 heures la ñuy yeewu xam naa métit bi lañuy ñuy bañ a kii moo tax ñuy tëdd di ko. profité wu li nga war a yëpp yëpp xet bi nga xet lu rëy. waaw <laughs> <laughs> li nga war a dégg yëpp li nga war a nga lekk ko. waaw loolu laa koy xëy di ndekkee deux kilos. nga xëy bañ a ndekki doo añ waa xaa ngoon est ce moo tax nalaw yi di gën a bari. yow dama lay na jour yàlla ah. foofu lañ ndékkee chaque jour mu jógee entraînement jaar fa yi xam nga rek ay borom baax lañ dañuy dagal yàpp chaque jour waxuma la chaque jour saa bu jógee entraînement séerage ñuy jaar bu ngeen wàccee jógee entraînement jaar matin fa ñu dagal ñu yàpp bu baax mbëy la moo tax ñu bëgg lu yomb waa gis nga xam mbër bu ñu waxaale yàlla mbor mënalul boppam dara mbor lu mu am yàlla ak nit ñee ko tax barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke mbor mënalul boppam dara dara da ngay jël fii dara bu balaa ngay jege nga seetlu ak jaamu yàlla yi ak ñi lay ñu jàppale mun dina mbor mu am dara ko parce que ñi ñu jara fonk lañ ñoo xamante ne billaay am am loolu la jaralu ci àdduna billaay da ngay gàññ xaalis sax ñu lay dencal sa xaalis di mu ñu ñu àddina na ko sante jaamu yàlla yi billaahi lu mu am ci àddina yàlla ak nit ñoo ko ko may billaahi mais léegi su ngeen xëyee suba ndekkiwu leen añu leen boole koog nalaw gi met boo demee ba ngoon naka naka naka la Ibou Senghor wa ndogoo <laughs> man moom tey tax damaa deelee ay trois heures ay cinq yooyu su ma ñëwee huit ba ay cinq ma dem entraînement école ba fa nekk ba ay dix huit heures demi ma ñu si bu ma wàccee moom xam naa moom déet waxuma lool de waxuma ay ma ne boo gannaaw boo xëyee ba ngoon jot naka nga war a bi moom day tar moom. xam naa ne mbir mi moom. damay ndogu ndogu ba reer bi day ñëw sax du ma mën a reer. ah non kilo mburu rek ak lu mu war a àndal quoi. ay be wala lan. ñebe fan ay nenu baxal boo ci defee quatre nenu baxal daal. dew ci ñebe. ah dew ci may ne door ci quatre nenu baxal wala cinq yooyu. nga door ko naan quatre nenu lekk. wala cinq yooyu des fois ma dew ci ay six nenu ay six nenu baxal yooyu. diw ci ndembe xam nga def ci sew yooyu noonu. ak Taasi Kafe xam nga ami rek sama jabaru mag bi kooku moom xam ne Baye Fall la maa ngi koy nuyu sax au passage. waaw ah, cinq nen bàyyi na de. cinq nen des fois sax six ndax démb defe na six laa doore de. six nen waaw moom laa doore ak kilo mbuuru maa ma gën a xam. reer bi ñëw nga bi ñëw après may xaar ba ay vingt trois heures wala ay mini yooyu rek man kese maay bokk reer. Ah. waaw man kese may tibal dugal ma ci raaj ubbeeku saana fee tànka saana fii tànka tiim bool bi dóor bu fi ne kànk nga jóg.